ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى imaam buxaari solo na ci jaamiu saxiixam bi nga xam ne mooy téere bi gën a wér gannaaw téere bi yàlla bi mu ne xaddasanaa aliyu bnu abdullaahi aliyu bnu abdullaahi nettali nañu qaala mu ne xaddasanaa jarir jarir nettali nañu an mansuur jëlee ci mansuur an salim ibni abil jaad jëlee ci salim doomi abul doomi abil jaad an kuraybin jëlee ci kurayb an ibni abbasin kurayb jëlee ci ibnu abbas radiallahu anhuma wane doomi abbas tudd nga abdoulaye ak baayam abbas te ñoom ñaar ñi bay saxaaba lañ moo tax ñu leen di boole radiallahu anhuma yal na yàlla boole leen gërëm yablugu bihi nabiya sayidna abdoulaye ibnu abbas yóbbu wax jee ci yonantu ba maanaam moo jëlee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa muy jotal bii ci wax janna bi yee yonantu bi sallallahu yàlla boole xéwal yëpp ak mucc yëpp sotti ko ko alayhi salaatu wassalaam qaala yonantu wax na law anna ahadakum su doon kenn ci yéen ida ataasu namee dikkal alahoo ñoñam jabaram dem góora jëkkatam ndem jigéena xaala mu ne bismillahi tudd na ma turu buur maa baa am na luñ fa nattale li ma nam ma def maa koy tàmbalee ci turu buur li ma nam def maa koy def ci turu buur li may sóobu maa ngi ciy sóobu turu buur kii yàlla allahuma yow yàlla mi ci tur yu rafet yaak melo yu kawe jannib naa yàlla nga teetal ñu yàlla ñu musal soril ñu seytaane seytaane wa jannib yàlla nga teetal musal soril te daqal seytaane seytaane ma razaqtana li nga nu na ma ci bile ànd nee na ku wax loolu fa qudiya baynahuma waladun dogaleef seen diggante doom maanaa doom juddu ca lam yadurrahu cheytaane du ko mën a lor képp koo xam ne wax nga ñaan ngi ci booy bëgg a sëy sa jabar wala bu dee jigéen booy bëgg a sëy sa jëkkët bu ca doom juddoo cheytaane du ko mën a lor yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wan njëriñu ñaan ba ci barab yi gën a critique xam nga nit ak kam bëgg buñ tolloo ci moment yu intime yooyu daanaka duñ sal lu bari waaye balang ca bu fexeel ba nga ñaan-ñaan ngi ndax seytaane looy soobu te defoo ko ci turu yàlla musuloo ci moom bu dee lekk la mu lekk ak yow bu dee naan mu naan ak yow bu dee sëy mu sëyandoo ak yow sa jabar te foo nekk nag mun na fa am accès te doo ko gis innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min xaytu laa tarawnahum alquran ji nga xam ne mooy waxi yàlla kenn mënu ca dugal lu ca bokkut laa yaati albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilu min xakimin xamid yàllaa ko wattul boppam inna naxnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun te yiwu àdduna ak àllaaxira ci dajeem ak lu dul yooya maa faratnaa fil kitaabi maa faratnaa terewul yow boo ci suubu yàlla ne la musul ci seytaane seytaane mënta yàq waaye mën laa yàqal yow ba doo jëriñoo alquran ni nga ko fa ida qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min asheytaani arrajim doole ji ko yàlla nga nangul ko ko waaye boo wéeroo ci yàlla rek mu ñàkk doole nga mujj di jaamu yàlla dootu la mën a lati dara ndax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan loolu la ko yàlla wax sama jaam yi mënoo ci ñoom tus kon nag wéeru ci yàlla dàq seytaane te dàqe ko kàttanu yàlla mooy dana tax nga nekk jaamub yàlla te boo xasee nekk jaamub yàlla dootu la mënal dara boo ko na nga ñaan ñaan yonantu sallallahu alayhi wa wax ne mooy nga naayu jullit ñaan yuuru jaamu yàlla ñaan sax mooy jaamu yàlla adduaau silaaxul mumini adduaau muxul ibaadati adduaa huwa al ibaadatu yàlla wax na ci alxuraan ñaan leen ma ma nangul leen udduuni astajib lakum wax ne maa leen gën a jege seen buumu xol yi aqrabu ilayhi min xablil waridi wax na ne waaw wa laqad xalaqna al insana wa naclamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa naxnu aqrabu ilayhi min xablil waridi wa huwa aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna wa ida saalaka cibaadi anni fa inni qaribun ujibu dacwata daaci ida dacaan sama jaam bi su ma jege su ma ñaanee su la laajee dama jaam suñ la laajee wax man ku jege laa waxu sax wax leen ndax bañ naa doxale kenn ci diggante bi Um, di wane nim ñu jegee terewul nag bu ñuy ñaan ñuy def tawassul ndax loolu mashruuhiyatoom mi ngi jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firiwul ne ñuy def tawasul mën na ci ñaan gi dara wala la ñuy def tawasul mën na ci ñaan gi dara waaye yàlla ci boppam moo am jaamam yu fokk yoo xam ne soo jaaree ci ñoom loo bëgg mu defal la da jaaree ci ñoom moo am jëf yum sopp yoo xam ne boo ci jaaree loo bëgg mu defal la nga jaaree ca yonent tuddal nañu ñetti ña tukki woon dugg ca xuntu wa xeer wa dëpp ca ñetti ñoo ku nekk wax jëf ju baax jum defoon te yàlla tax yàlla dekki xeer wa ñu dem jàngal nañu tamit xadiisu gumba gi ñëwoon ci moom yonentu wax ko jàppal nga def ñaan gi def tawasul ci man yàlla daal di ko dindi dindi uh, gumba ga naka noonu Seydina Abdoulaye Abbas Seydina Omar ñaan na ci def na tawasul ci moom ba muy ñaan taw ni ko Buxaari yu tuddee ñaan mooy ngànnaayu jullit bul yéem dara ba ne duma ko ñaan ndax mënuma koo xam dara réyut ba toll ni ba day dara ci kàttanu yàlla gi ak mën-mënam waaye bul xeeb dara ba ne ah de xam naa ko duma ko ñaan ndax dogalu yàlla dafa sew mën naa jaar fu nekk taxaw ca diggante ba xorom lum tuuti tuuti ñaanal ko ñaanal yàlla mu la xorom goo xoromee sa cin waaye soxla lum rëy rëy bu ca xeeb sa bopp gis ca yàlla wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daan kon nag fal yastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi julli goo xam ne dañu ci nangoo suñuy ñaan fajee ci suñuy aajo barkeelee lañu barkeelee ci barkeel ci suñu njaboot barkeel ci lépp lu ñam bi xurmati rasulillahi sallallahu wa sallam te xeelee ñu ci àdduna ak àlaxira may ñu fuñ toll di gis yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci lu nelaw ak ci nelaw tamit